asalaamaaleykum waa Sénégal asalaamaaleykum waa àdduna maa ngi leen di nuyu di leen ziar leen baalu wax te di leen baal àq di ñaan yàlla defal ñu jàmm ci suñu Sénégal gii man nag je ne suis pas média ndax lu am fulla am fayda wala sama liggéey rek mooy tax ma génn ci média dafa fekk ne nag lu yëngu lu nekk la ko yëngal moo ko ëpp doole sama deret moo yëngatu ndax fan yépp coow yi bari na wax yi bari na loolu duma ci dellu man sama doom rek laay waxal laay